Canal Plus nag lépp lu xeetoog tàggat yaram bokk nañu ci ñi fi mën rawatina football kon ko amagul seenub décodeur wala ki ko am te abonné wul woon tamit li ñu koy ñaan moo di mu daw abonné ji léegi ki ko amagul woon tamit na dem wuti ko ndax Coupe d'Afrique bi ñuy dund jamono jii du fenn fudul ci group Canal Plus rawatina Canal Plus CAN Bonjour, c'est Lilian Gatoun en direct du plus grand rendez-vous du football africain. Chez Canal+, on est tous prêts avec la nouvelle Un dispositif exceptionnel. Tous les matchs de la compétition en direct et en HD. Tous les experts Canal Plus et des émissions spéciales. Je vous promets, on va tout donner. ak Canal Plus dinañ joxe lépp ci kaan bi match yëpp ak experts yi 24 heures sur 24 loolu yëpp ci chaîne bii di Canal Plus kaan bësal lëf ci sa décodeur am bépp xibaar ci kaan bi kon réabonné wu leen gaaw ngir dund kaan bi yëpp profito ci tout Canal Plus nga xam ne dañ la koy may ci diiru fukki fan ak juróom. ñu door xibaar yi dooree ko ci match bi war a dox suba ci diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire match boobee nag mi ngi soxal huitième de final Coupe d'Afrique bi Sénégal mooy jàkkaarloo ak Côte d'Ivoire Aliou Cissé nag wax na ca match boobee nee na li de weesu na nañu ko fàtte jëmbat fulla ci li fi xew jamono jii mu di Coupe d'Afrique bi ñuy jongante jamono jii waaye nag mi ngi fàttali waa Côte d'Ivoire ne leen am na nag lu fi jotoon xew ci atum 1992 ndax ca at moomee Sénégal moo daloo woon Coupe d'Afrique bi at moomee nag Côte d'Ivoire moo ko jëloon fii ci réew mi Aliou Cissé mi ngi leen koy fàttali ne leen loolee nag bor la bor boobee la ñu ñëw jël si ko ñun waa Sénégal waaye aliw nee na bu dara dul dara nag ñaari réew yi dañoo xaritoo lool ay mag ak ki rakk lañu loolee la Aliou Cissé xamle waaye nee na li amoon ci atum 1992 loolee moo ñu indi fii ci réewu Côte d'Ivoire li ñu bëgg moo di Coupe d'Afrique bi ñu jël ko bëgg-bëggam boobee nag nañu ñaan yàlla dogal ko suba ñu am ndam yaatu ci kaw Côte bu vingt heures jotee ñu jugee ci Aliou Cissé ak i kàddoom jël défenseuru équipe nationale bi tudd Moussa Niakhaté moom nag dafa amoon blessure keroog bi Sénégal di jàkkaarloo ak Gambie blessure am boobee nag wax na ci moom doomu Sénégal bi nee na jamono jii mi ngi yëg tan bu baax ànd na ci paj mi ak staff médical bi maanaam ñi yor wàllu wér yaram bi ca équipe nationale ba ànd nañu ak moom faj ko jamono jii mi ngi yëg tan bu baax kon mën naa am suba mu départ titulaire muy Moussa Niakhaté keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Gambie nag ci la amoon blessure bi ñuy jàkkaarloo ak gine Conakry bokkul woon ca match boobee waaye nee na jamono jii mi ngi yëg tan bu baax. ñu jugee ci Moussa Niakhaté te di ko ñaanal wér-gu-yaramam jëm kanam jël Emerse Faé mi nga xam ne mooy tàggat équipe nationale bu Côte d'Ivoire moom nag dañ ko dénk ndéegum équipe nationale bi naka fa nekkoon dañ ko dàq moom nee na suba ñu gis xar kanam bu bees tàq ca équipe nationale bu Côte d'Ivoire moom nee na na groupe bi bu baax te mi ngi xaar ci ñoom lu rëy te lu rëy loole muy xaar ci ñoom nag suba gone yi dinañu ko wane loole la Emerse faye mi tàggat Côte d'Ivoire xamle bi mu jàkkaarloog tey jii ak taskatu xabaar yi ca conférence de presse ba ñu jugee ci Emerse Faé ak i kàddoom jël doomu Sénégal bii di Pape Alassane Gueye moom nag bokkam ca match boobee wuuragut li ko waral moo di keroog bi Sénégal di jàkkaarloo ak Guinée Conakry ci la amoon ab blessure ca match boobee booba ak tey ji nag bokkul ci entraînement yi comme ni mu ko bëggee tey jii sax entraînement bi gaynde yi doon amal moom Pape alasan Gueye bokku ca woon kon bokkam ci match bi suba lu ñuy seetaat lay doon maanaam wóoragut su fekkee nag bokku ca Abdou Lahad Diallo la ñu jàpp ne mooy taxaw ca palaasam doxal ndax Abdou Lahad Diallo dafa amoon carton moo tax keroog bi ñu jàkkaarloo ak Guinée Conakry bokkul woon ca match boobee waaye loolee jeex na moom la ñu jàpp ne moom la Aliou Cissé di teg ca digg ba mu wuutu fa Pape Alassane Gueye su fekkee bokkul waaye ñaar ñi moom kenn du leen soppi muy Lamine kamara ak Pape Matar Sarr ñooy nekk nekk ca digg ba doxal ca défense ba moom ñoo ngi fay xaar ñaar ñii muy Kalidou bali ak Moussa ñaxate Moussa Niakhaté dafa amoon blessure waaye jamono ji mi ngi yëg tan bu baax ak lu mën di am ku mën di départ yàlla na équipe nationale bi am ndam ci kaw codiwar suba incha allah. ñu jugee ci match boobu war a dox ci diggante Sénégal ak codiwar dem ca équipe nationale bu Cameroun coow li nag jeexagut ci diggante Eto'o ak Onana ndax kat démb biñ leen éliminé maanaam bi ñu toogee ci Coupe d'Afrique bi Eto'o dafa jël kàddune ne yéen ñépp li ma bëgg moo di ñu dugg ci avion bi dem ba ci réewu Cameroun kenn ku ne door dem ci sab club ñépp nangu nañu nag ba mu des Onana Onana bi Eto'o waxee loolee daf ne kenn ku ne ni nga ñëwee woon na nga ñibbee noonee foofee sax la jaaree moom dem ca Manchester kon li Eto'o wax ak li mu def du benn kon diggante bi ba léegi mi ngi kajam muy diggante Onana ak Eto'o ñu jugee ci équipe national bu Cameroun ak Onana wak Eto'o ak diggante bu ñagas dem ci équipe national bu Égypte fekk fa seen attaquant bi tudd Moustapha Mohamed moom nag réewu Égypte ñetti match yi ñu jongante ca Coupe d'Afrique ba ñetti match yëpp dugal na ca ab bit loolee nag gëj naa am ca équipe nationale bu Égypte mi ngi gëjoon am ci atum 2000 loolee ki ko fa mujjoon def mooy Hassan Hassan waaye moom mi di Moustapha Mohamed def na ko ci Coupe d'Afrique bii ñu nekk ñetti match yi mu football yëpp lu mu gàtt gàtt dugal na ca ab bit ñu jugee ci Moustapha Mohamed ak i jalooreem jox leen benn résultat bi jot a am tey jii tey nag ñaari match ñooy am benn bi jeex na léegi Guinée équatoriale moo doon jàkkaarloo ak Guinée Conakry Guinée Conakry nag moo am ndam benn bal ci dara kon ñoom dem nañu ca quart de finale ya waaye dañuy xaar match bi dox ci diggante Égypte ak RD Congo bu jeexee ñu xam ku ñuy jàkkaarlool ca quart de finale bit bi nga xam ne nag moo tax waa Guinée Conakry dem ca quart de ya ki ko dugal moo di Mohamed Bayo bit bi nag cete na lool waaye li ëppoon solo moo di ndam am nañu ko ñu jugee ci résultat yi jox leen programme suba bi suba ñaari match la ñuy xaar incha allah Cap Vert war na jàkkaarloo ak Mauritanie match boobee 17h lay door incha allah suñu jeexalee rek équipe nationale bu Sénégal war na jàkkaarloo ak bu Côte d'Ivoire match boobee 20 lay door kon loolee mooy programme suba bi nañu ñaan nag suba incha allahu rabbi Sénégal am ndam lu yaatu ci kanamu Côte mën a dem ca quart ya gaañi journal de bi foofu la buuree ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ba ci ak beneen vidéo incha allah